lislaam ndax ñii dañuy war nañoo gàmm ñi ci des daal di ni wóore gàmm ñii dañ ko saxal ñeneen ñi dàq ko ab jullit nag war a xam eh, ñaari position yëpp ngir lislaam ab jullit mu ci def dara xam ko baax na ci bu jëkk ba ñi nga xamante ni dañ ni eh, dàq gàmm walla sax ñu àgg ci xaraamal ko wan ñu daal sos la loo xamante ni yonent bi bàyyi ko fi alayhi salaatu wasalaam waaw ah, dañu am ay cëslaay yuñ ko teg bokk na ci cëslaay yooyu bu ci jëkk ma indi waxi sunu borom subhaanahu wa taala ci suratul maayida jaay ñetteel ba daal di wax ne sunu borom nee bismillahi rahmaani alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum niamati wa raditu lakum diina mooy tey matal naa diine sëkk kon nee nañu kon lu mat jëlu ñu si dolliwaat dara gërëm loo naa lislaam muy seen diine kon ñu ni foofu benn la ci cislaay yi nga xamante ni ñoom ñoo dàq gàmm wane ni kon gàmm yonent bi forme yii ñu koy defee yonent bi bàyyi ko fi woon kon yokkul ci diin lu ci yonent bi deful bokk na ci ay yu ñu jëfandikoo booba ci tënk daal di indiwaat beneen xadis boo xamante ni mboolem kilifa yi nettali xadis te gën cee mag yëpp wéral nañ ko xëy na tëggin wi mën naa wuute waaye sens bi de maana bi benn lay doon sëriñ mooy xadis bi ibnu Mas'ud solo ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam iyaakum wal muxdasaati al umuur inna charra al umuuri al muxdasaat fa inna charra al umuuri al muxdasaatuha wa inna kulla muxdasatin bidaa wa inna kulla bidaatin dalaala daal di ni maa ngi leen di moytuloo yi ñuy sos ndax li gën a ñaawalal yées ci mbir yi mooy yi ñuy sos na ngeen xam ni yi ñuy sos yu baari yi ñuy sos yëpp rek bidaa la te bidaa yëpp ak réer la boo demee ci sa yi mu dolli ci daal di ni kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar bidaa yëpp ak jànku la sànku yépp eh, seeni borom sawar la ñu jëm buñ ko bàyyiwul ñu teg ko foofu daal ni kull boobu nag daanaka mooy jafe-jafe bi kull bi dañ ni boole seen ah ni bi yonte bi ne kull moom dara gi dara génn ci yëpp da ci daal di ci dara doon génn ci wala ma usuul yi ñenn ñi daal ni day ànd xarina maanaam luy wane ni lépp waaye lii bokku ca waaw ah, comme tey jii boo demee ci suratul Ahqaaf Aysatu suñu borom ba muy wax ci waa xaaf ni leen alag yabal ngelaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la illa masakinuhum gis nga foofu mooy yàlla dafa ni dafay dafa détruire mboole seen ba boo xëyee gis lu dul illa istisna la sauf seen kër yi maanaam seen gént ñu ne kon kullu boobu yee la ca ginnaaw la ca kanam di ilaa go illa illa moo ko déterminer yooyu kër ya bokkuñu ci nit ña faat nañu yu bari yàqu na bakkan yëpp alku waaye nag illa masakinu moom des seen gent ya aïchatu euh, na ci tamit ahadis yi nga xamante ni euh, danañ ko tegtaloo ñi nga xamante ni ci lislaam dàq nañu gàmmu ci forme yi nii ñu koy defee ci sunu ndey Aysa ummul muminin wax ni yonent bi dafa ni man ahdasa fi amrina haada maa laysa fiihi fa huwa raddun képp ku sos ci sunu mbir dara lu ci bokkul loolu luñ lay delloo la maanaam ku fent dara rek te bokku ci luñ lay delloo la yooyu boo demee ci Buxaari indi na ko muslim indi ne ko joxe ci ay yoo xamante ni leer la ah, pàcc bi nga xamante ni nag ah, sëriñ ñoom ñoo yoonal gàmm dëgëral ko ah, ndax dañ ko jële ci taarixul islaam daal dinañ moom lislaam sekk li jëkk ya taloon mooy yàkkali diine tuubloo nit ñi ubbi réew yi nga xamante ni ak kéefar moo ko notoon kon loola moo doon yittijee jamono jooje ci siècle yi jokkee ñi dañuy ñetti siècle yi ñi ne ëpp di ko sax siècle yi toppaat jamono yi toppaat mooy dajale ahadis mooy euh, <clears throat> asur tadwin dajale wax yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn daana dox réew ak réew ngir leerul benn ahadis siècle ya ca toppaat maanaam jamono jamono ya ca toppaat at ya ca toppaat seen yitte mooy almu rijal li naan almul jarxi wa taadil ak almul usul yu demee noonu xam-xam yi seggi ya ca wér ak ya ca wérul bi yooyu weesu nag si diggante sixième siècle ak septième siècle borom xam-xam yi daje daal di ni ginnaaw léegi l'islam daanaka am na stabilité ah léegi nag war nañoo lislaam yaatu na si àdduna si bëtt na frontière yu bari ba xëttaloo daanaka léegi war nañoo jàpp benn weer wala bis ba ñuy jagleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ci fàttali ko di jàngale ay jikko te bis ba ca gën a jaadu mooy bis bi mu feeñee jamono ndax bis bi mu feeñee jamono moom yonent bi daana woor ñu ne ko lu tax ngay woor bis bi mu daal ni ci laa feeñ jamono zaaka yawmun wulitu fiihi bis bi laa feeñ jamono ñu mel ni tegtal bokk na ci tegtal yi ñu jëfandikoo mooy booba ginnaaw jagle woon na alti altine bu ne bu koy woor ñu laaj ko mu ci laa feeñe woon jamono euh, kon ñenn ci borom xam-xam yi daal ni kon màggal ko lu yàgg la parce que dafa am yenn feeti ci sharia yoo xamante ni yi charaan la ba ya des nag eh, mën nañ eh, al urfu la maanaam comme juddu xam nga sax ci yontu yàlla yaxya yontu yàlla isa yàlla a ngi koy wax suratul mariam ni yontu yàlla isa dafa ni wa salaamun wa salaamu wa yowma amuutu wa yowma ubaasu xayya doxalal di ñaan ci feeñu jamonoom ak bis bi nga xamante ne ci lay dugg biir suuf ak bis bi nga xam ne ci la ko yàlla yi dekkal yàlla wax ko ci yontu yàlla yaxya mooy salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu xayya ci yontu yàlla yaxya wax bisub juddum kon daanaka bisub juddum bisub sacré la ci dajale tegtal yooyu yëpp daal kon gàmm jaatu na daal di ni e, ñu njëkk ña waxoon ci lañu dëgg ba dàq gàmm ndax bokku ci yu ñu sos daal di ni ama ci amee ci yeneen déggin ci boo demee ci ilmul usul wala ulamaul usul yi ñoo koy atte usul boo ko déggee sëriñ mooy teg si diine yi teg yi nga xamante ni moom lu jullit ñuy jëfandikoo borom xam-xam ya koy xelli waaw koy xelli waaw ah, xam-xam bu xóot la bu sew bu bari ay ndëgg sarax waaye xam-xam bu am njariñ la mën su ta dégg diine te xamoo ko eh, ñu dem ci kull boobu ñee dañ koo jàppee sumuul yi maanaam lépp day dugg ñee jàpp ko badal yi len len rek ah wax rek ni am na kull yoo xamante ni moom lépp la làmb waaye am na yoo xamante ni lenn la indi seen tegtal ci alxuraan ci xolmal usul yi mu ngi mel ni surtout nam li boo demee ci malikatu saba di balqis sëriñ ab buur bu jigéen la woon nekkoon te réew muñ saba sunu borom subhaanahu wa taala ni jox naa ko lépp waaw wa uutiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim jox naa ko lépp boobaa kullu boobu dañu ni badal la maanaam euh, euh, euh, du lépp waaw waaw ndax jox na ko lépp mooy jox na ko nguur jox na ko waaye yaa ca des yëpp ndax buur loo rëy rëy ci àdduna heure boo koy romb yow moomul ak ñoo moomul ak ñoo yiliful kon kullu boobee lenn rek la ay seen i tegtal borom xam-xam boo xam ne moom ciy bind ab téere ñu naan ko al imam taqiyuddin as-subki daal di tudde téere ba axkaamu kull wa ma alayhi tadul axkaamu kull wa ma alayhi tadul day wax ci façon kull yi nga xamante ni am na ci beneen borom xam-xam bu ñu naan al imam Izzuddin ibn Abdissalaam sultaanul ulama borom xam-xam bu mag la 660 la fi jóge ñëpp dëppoo nañu ci ni xam-xamam moom surtout ci wàllu xam-xamu diine surtout euh, almel usul moom taarikàlla ab xar yi la maanaam bokk na ci érudit yi gën a bi dafa wax ni bidaa juróomi façon la dafa am bidaa boo xam ne waajib la am boo xamante ni euh, mandub la am boo xam ni mubaax la am boo xamante ni makruh la am boo xamante ni xaraam la kon dafa juróomi façon la bidaa bidaa bi nga xam ne waajib la nag mooy bidaa bi nga xamante ni leen ne obligation la wala doo devoir la mi euh, ngi mel ni arxuaan ni ñu koy def ndax ni bi bàyyi ko woon nii kenn dajalewu ko woon ci ab téere kenn saddawu ko woon kenn maasu ko woon kenn wutulu ko ay saar kenn defu ci woon ay sumun ak i nisif ak i rubo ak xisib kon bidaa la waaye bidaa boo xam ne waajib la ndax mënta ñàkk ku ne xam tamit eh, ci jullit ajjuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn noot la fi bàyyi woon Aboubacar noonu la ko bàyyi Omar noonu ba Ousmane ñëwee la ci dolli yeneen Omar ibnul Xataab it rot na imaamu Buxaari nettali na ko ci téeréem ba boo demee ci numéro 2010 da nga ko ci fekk mu ne Omar ibnul Xataab génn na ci weer koor ànd ak ñu naan dem ci jumaa yonent bi fekk leen ñuy naafila kenn ku nekk nekk ci coin mu mel ni rek anarchie mu daal di digal mm, Ubay ibnu ibni Kaabin ni ko bu subaa ngay jiite leen naafila ba bis ba euh, ci suba ka jotee mu ànd ak ka mu àndaloon bi mu ñëwee xool ñuy julli julli gu harmonie bu am solo mu daal di Omar daal ni ni amal bidaatu haasihi li te bidaa bu rafet la kon borom xam-xam yi usul yi bari dëppoo ci nii kull boobu mooy bidaa yu ñaaw ya waaye yu baax ya bokku ca ndax day taaral day rafetal day dëgëral diine te màggal Yonent bi alayhi salaatu wasalaam luñ ko mag luñ ko jox dayam rek tuut na ndax yàlla ko ko njëkk njëkk jox waaw te mooy modèle bi yàlla moom la ñu booleel. Euh, ki ku njëkk a màggal ci àdduna nag sëriñ euh, dëppoo nañ ci ni organisé ko fële ci xaraax la euh, dëkk bu naan Erbil ñu ngi tuddoon Abu Saïd Kawkab Wuuri foofu ci dëkk ba daan lal benn tapis ci tàmbali dëkk bi ba ci bitu dëkk bi ay kilomètres def ci ay xéewal waa dëkk boo xee ci la ñuy ndékki ca la ñuy añ ca la ñuy reer ñuy tagg yonent bi alayhi salaatu di tëral nit ña di waxtaan ay jikko borom xam-xam yi am na benn téere bu am solo boo xamante ni tamit foofu daanaka foofu la ñuy tëjee di Cheikh Jamil Halim binti téere boo xamante ni mi ngi ko tuddee <coughs> euh, euh, euh, maanaam kawkab al munir bi jawaazil ixtifaal bi mawlid al haadi al bachir waa xam na ci lu mat deux cent quatre-vingt-sept boroomi xam-xam yu mag ci diine y compris yi al Hajar al Asqalani imaamu Nawawi et tant d'autres euh, bind ci gàmmu dëgëral ko wëyal ko leeral ko dëgëral ko ak ay daarul ifta mooy ay kër yi xam ne ay boroomi xam-xam yu mag ñoo ci ca daje ci àdduna bi ak ay ministères yoo xam ne ci république islamique yi la nga xam te ni yaatu na ñi ñi ko dëkkër lool kon dafay mel ni kon gàmm waxtaane yonent bi la lépp luy waxtaane ci ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp ci waram xam-xam yi ko séene nañu gàmm rawatina nag ci suñu réew yi nga xamante ni la ëpp ci ñoom euh, sëriñ bi woote na ko si xel xadim si El Hadj Malick leeral ko te Sëriñ Tuubaa dafa ne taazimuhu bi sunnati yaquluna lil jannati maanaam màggal ko te teg ko ci sunna day yóbbu nit aljanna bi ko Seydil Hadji Malick di woote it dafa ni alaa azimu laylal wiladati isa lim yakun naxwal xaraami udulu ndax duñu màggal guddi yonent bi bu fekkente ni lu xaram bokku ca kon dafay mel ni foofu la ko bokk yooyu tënk lu ci jub nag ñu sant ko sunu boroom ndax yonent bi dafa ni at tarku maanaam ulamaul usul yi dañoo wax ni at tarku laysa dalil al xurma maanaam bàyyi yonent bi bàyyi dara nekkul ci tegtal ni loolu xaraam la waaw tarku laysa dalil al xurma wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh